mbaax relation bi weesoo nag. Mhm. muy une grande actrice. waaw waaw. elle fait partie des meilleurs de ce pays. de jouer ay rôle yo xamante ni gis. artiste bu ko nangu jouer interpréter yombul. kon koku c'est une artiste hors pair. hein donc euh, boo ko déggee wala nga gis ko di nga xam ne kii li muy def. du tayeef. dëgg la waaw waaw ndeysaan du tayeef. bu séqul woon ak réew mi dara sax tey nit rek doy na sëkk ci ñu soutenir ko nit nu mu war a téyee moroomi nitam hmm. nañu jël aar beeg euh, rôle xam nga talent bi mu am ak yëpp tegee ne indi en euh, tant que nit ak doom ak nit hmm. ñu soutenir ko bu dee euh, ab paj la hmm. ñu ñu jéem ndax paj moom ku dem yàlla la yónni waaye faj baax na waaw ñu jéem

bu fekkee ne ndimbal la yittewoo nañ dimbali ba taxawu ko ba nga xamante dinañ ko récupérer waat. du yoon ah, artiste euh, leneen la artiste bu ko kenn méngaleeg doomu aadama bu normal artiste la mhm. parce que artiste bi lu ko may ba convaincre mhm. boo ko amoon yow du convaincre <laughs> kon am lu mu lu mu lu mu euh, may artiste mhm. te ko artiste donc il faut que nit ñi une fois la personne mm. se nomme artiste yamatul ak yow mi sa bopp mi koy mi koy seetaan mm. mu ñu leen doon benn mm.